jërëjëf mbokk internet yi fépp fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ah, ci bàyyi ah, xel gi xam ngeen tey ji ci àllarba ji la Touba sébbalu maanaam am tawam bu njëkk mu enregistré ko ci hivernage 2018 ba tax nag Euh, gis ngeen boobu ba léegi euh, ci internet bi ñuy wane ay photo yoo xam ne ay nataal yoo xam ne dañ cay fësal euh, ci côté miiru kër Serigne Abdou bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw ne Touba ay inondé mu mel ne ki li wër jumaa ji wala yu mel noonu dafa fees dell ak ndox te loolu daanaka mën nañ ne amewul noonu ndax ñun ñi ngi fii taxaw ci bërëb bi jamono ji muy taw te boobaak léegi gisuñu lenn loo xam ne nii lu mën a fësal lu ñuy tudd ab inondation wala bërëb boo xam ne dafa am ndox mu jéggi dayoo ci kanam tudd daañu leen yi nga xam ne jamono ji mi ngi évacuer lu jëm ci wàllum ndox meeg yu ni mel waaye daal la ñuy fësal nataal yooyu ñuy gis ci internet bi di fësal ne Touba yi inondé jamono ji ñun ñii fi dëkk nekk fi di fi liggéey itam gisuñu leen lu jëm ci wàllu inondation taw bu njëkk bi nga xam ne nii am na kon dañ leen di bàyyi ak image yi ngeen xool li nga xam ne moom moo di canalisation yi wër jumaa ji naka lay évacuer ndox mi ak itam ñi photo yi nga xam ne ñi ngi koy wane ci miiru ko sëñ ab Lahad bi wax ne dafa inondé mu ñu fësalee ne que benn ndox bu taal nekku fa lu weesu ay tepp-tepp ndox yoo xam ne ni miin nees na ko ci ab taw ne saa yu am même dëkk yi gën a mag ndox yu mel noonu dana fa taa ba ci kanam tuuti canal yi doog koo évacuer kon ñu ngi leen di sant ci seen bàyyi xel leen jërëjëf leen wax ba beneen yoon jërë ngeen jëf